asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin mbokki julli di ginnaaw bi ñu sante borom bi tabaraka wa taala julli si sangu sangay sayidina muhammad sallallahu alayhi wa di am mbégteeg kontaante fa tabarkallah si programme bi nga xamante ni moom la doon def tey mu tombeek le 26 décembre muy guddi fa ilayka delloo njukkal Serigne Alfahima Thiombane wax dëgg yàlla am ci mbégte kontante ndax woote yomb na mais ñu wuy sele moo jafe di ci gërëm mboolem koo xamante ne rek teew nga ci programme bi ak képp koo xamante ne rek def nga si sa dërëm di ñaanal kilifa gi muy Seydina Omar Jonn mii taxaw wax dëgg yàlla mu wal mbir mi bii di sixième édition ku ne xam na ni du mbir mu yomb waaye fa laa yàlla suñu borom kattanal na ko ba chaque at rek yokkute am ci kon loolu kat ñu ngi koy sante borom bi tabaaraka wa taala ndax mënuñu amuñu yàlla rek moo mën yàlla rek moo am ñu ngi ñaan yàlla suñu borom wax dëgg yàlla mu dolli ko sutura yàlla jàppale ko lépp fu Omar Jonn bëgg a yegg rek yàlla na ko fa borom bi tabaaraka wa taala yeggale ndax ku fi ñëw rek xam ni programme bi réussir na wax dëgg yàlla ndax lu toll ni grand théâtre nga feesal ko loolu yombul kon Seydina Omar kat ñu ngi koy ñaanal yàlla jàppale ko yàlla taxawu ko bu baax a baax a baax di kontaan ci ñëpp nag képp koo xamante ne teew nga fi rek def nga fi sa alal rek Omar Dione mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm di nuyu mbooloo mi yëpp di ñaan yàlla nañ ko teewee at yu bëree bëree bëri bëri allahu rabbi kon kilifa gi moo nekk nii Seydina Omar Dione ñu bàyyi ko mu sànni ci ay kàddu rek incha allah bisimilah. aouzu billahi seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki julit yi maa ngi leen di nuyu di leen a di nuyu waa télé bi ma jàkkaarloo muy SSP TV ci njiitalu directeur Pape Diouf di am mbégte kontaan te ci ñëpp rek tabarkalaahu di kontaan ci bis bi oote ñu buy loolu jafe na tabarkalaahu te yàlla may na ñu nit ñi ñëw man ko teewe yàlla yàlla may ñu ñu def ko at yu bëree bëri di rafetlu seen teewaay di kontaan si ñëpp surtout Yves Lamine Ciss maire Morolan moom mi nga xam ne ba mu jàppee ba tey bàyyiwul ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën ko jàppale président de la république ñu ngi lay ñaan nga defal ñu Yves Lamine Ciss mii ministre tabarkallahu bi nga xam ne mooy nekk ci département Tivaouane ba Morolan sarga sagalee ñu ko ñun séeréelu Morolan ñu ngi lay ñaan loolu tabarkallahu donte joxaat nga ko benn ndombu tànk fan yële passé ñu ngi lay ñaan nga joxal ñu ko beneen muy ministre bi si topp mooy jumaa Serigne Alpha Thiombane Bélé yow président de la république Moussa Macky Sall man Seydina Omar Dione maa ngi lay ñaan si eh, kàddu population nduttu population Daaru alfa population Morola nga jàppale ñu ci suñu jumaa ji la xam ni néew doolee tax jumaa di mënagul àgg jumaa joo xam ni dem na lu ëpp 300 million kon président yow la yàlla jox doole ji ñu ngi lay ñaan nga nemmeekul ñu suñu jumaa jële ca Daaru Alpha ci eh, kàddu xalifa bi Serigne Jibril Combaan man ma ñëw man Omar ma jàllale ko kon wasalaamualeykum wa rahmatullah SSB TV ah ñu ngi leen di sant di leen gërëm Pape Diouf directeur ñoom Mouhamed Ciss tabarkallahu ñu leen di sant bu baax a baax tabarkallahu